depuis Italie Ndoye bu fekkee ni rek mu ngi dégg ñu daal di koy euh, jël directement moom it mu daal di euh, indi xalaatam ci li nga xamante ne moo di temu tey bi euh, thème bu am solo la macha allah Ndoye bu fekkee ne mu ngi ñuy déglu mu ngi ñuy dégg rek ñu daal di koy dugal directement moom Ndoye Samb voilà allo Ndoye allo. voilà mu mel ni moom dooy euh, duggagul waaye tamit euh, yaay booy euh, dañuy daal di jàll ndax sama ndijaay wax na ko léegi léegi. Mhm. moo di ñàkk ngor waaye tamit mbëggeel ci la lalu. Mhm. ki nga xamante ne bëgguloo ko. Mhm. naka ngay demee di sëyal ak moom ba sax mu lay déplacé di la yóbbu ko Europe. waa xam nga en général luy indi loolu gis nga jigéen moo mën a téye mu dëgër mais bu fekkente ni jigéen nee na la ba ma rek ba ko. ndax bu màttee rek day dagg. jigéen jigéen jigéen jigéen. ndax góor des fois da ngay bàyyi say way jur xel nga dem tukki ji di daan sa doole ngay ñëw. Mhm. ku mel ni man ne la sama doomu xarit bi ak a baax dañu dégg la yaayam bu doon sama sago di nga jël ko soxna. Mhm. wala sa doomu nijaay ji bu doon sama sago nga jël ko sa doomu bàjjan bi loolu day defar mbokk sax. boo ci amee lii nangam ma fekk yow ku jigéen ka nga koy utal nobbu ko santiru ko mhm. mu ngi woon ci leneen di dund dundam mu neexoon lool mhm. këli jóge Europe ak ay millions yow ci sa bopp yow yaay ji yow mi nga xamante ni yaay alikale ji war a noppal ku noppal sa doom mhm. yow yaa koy tànnal soxna yaa ngi comprendre dëgg mu dugg ci ba ndox si baat nag war yooyu daal di ñëw ku jigéen ki dafa war ko góor gi waaye bu nu xoolee sëy boobu ba ca biir tànnalu ko boppam dëgg yooyu mooy indi yow ki nga génnal ay at mbaa boog ay weer mbaa yaa xam takk ko mu nga bëgg ko mu bëgg la du ngeen dem ba Europe mu di la or en général waajuram moo ko tànnal jooja jabar mhm. moo tax mu dem ba fa mu dem def ko nam ko def mhm. surtout loolu euh, Ndiaye Diatta na ñoo xam ne euh, jamono ji bu fekkee ni takk nañ seen yaay moo tax ñu féetee fële ci Europe wala sax mu am koo xamante ne dañ leen di présenter ndax loolu tamit yoon la mais loolu du yoon mais mooy ni ma commencé rek nee naa sànq euh, nit soo koy jël day fekk yow nga bëgg mhm, xale bu jigéen bi tamit buy dugg ci yow day fekk mu bëgg la mhm. mais xaaral mu utal la xaaral ma seetal la des fois muy euh, euh, des fois mu tombe mhm. des fois sëy boobu dëgër des fois mu am sens lay doon sens lay doon eh, bu fekkee dafa am ku nekk ci ligne bi voilà mu mel ni moom moom Ndoye dugg na Ndoye ah, ñu ngi lay ah, aawuzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu alaykum sama mbokk di leen nuyu ak di leen ziar mm-hmm. delloo ziar bu di baalu ñëpp di baalu ñëpp ma nag te di leen baax ci contretemps de affaire technique la woon rek maa ngi koy jéggal bu baax a baax dëgg mu ngi noonu di nuyu nag képp koo xam ne yaa ngi ci plateau boobu jëkke ci soxna Rella maa ngi lay nuyu sama sister fay naa la bu wér ñun ne sunu yaay booy jooju nga xam ne sunu soppe la sunu yaay Aminata Naar ñu ngi koy nuyu ak di ko ziar di ko jox wàccuwaayam ndeysaan waaye waaye am mbégte fekk sama góoru bopp sama càmmiñ Cheikh Mbaye Ndiaye di ko nuyu ak di ko ziar di ko jox wàccuwaayam kooku sama lépp la ndeysaan bokk ngeen plateau daf may neex macha allah. gannaaw ba ma nuyoo nag ki nga xam ne mooy suñu technicien bu ñaaw di jibi ak ki nga xam ne mooy Gilles Khadim sunu journaliste Pape Demba maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax macha allah di nuyu sama doomu yaay Ndeye Marie ñu am jom la di macha allah di ko ñaanal sama doomu yaay Ndeye Marie depuis France mhm. waaw doom ji am jom jooju moo na mi daloo nga def sama doom yaay nuyu naa ko ziar ko waaye di nuyu na mhm. képp koo xam ne rek doomu sénégalais nga di sénégalais maa ngi lay nuyu rawatina nag sama mbokki diaspora yi ndeysaan képp ku ne si diaspora bi ñu ngi lay nuyu waaye di leen mastaw mastam ci ci fitna bi nga xam ne yeew woon na Sénégal di jaale ñëpp nag ñi si ñàkk seen bakkan yal na yàlla yërëm leen te jéggal leen ci barakatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam donc naa ba ma sant sama ñaari waajur julli ci sangu sang yi bàyyi rokkee Fatima Umu Kalsum lay ndeysaan di am mbégte duggaat tey si émission bi nga xam ne dafa nekk émission bu am solo lay ndeysaan dëgg la mu dellu si nag ëttub diaspora mhm. ndax ëttub diaspora dafay ëtt boo xam ne ëtt bu yaatu la dëgg la ndax boo nekk ëttub diaspora di wax ak sénégalais yi nekk ci yaa ngi wax ak waa sénégal ndeysaan dëgg la ndax ñu ngi diaspora sénégal la ñuy dund dëgg la ngeen andi nag émission bu am solo dellu ci mhm. émission trahison dëgg la vie bi nga xam ne mooy divorce yu métti yi am ci biir diaspora bi mhm. soxna Leila. dëgg la may lay da point bu sensible. da nga laaj point bu am importance. da nga boo xam ne point bu yaatu la boo xam ne ni ñu koy dundee fii doy na mm-hmm. waar. doy waar goo xam ne liñ naan ku ñëw xam. Mm-hmm. ku ñëw Europe yoo xam ne Sénégal day dund ci. dëgg la. ndax nag sama yaay wax na ko nee na boo juddoo dafa am ay valeur mm-hmm. ay valeur yu lay gunge boo juddoo. nga nekk doom joo xam ne dañuy def si yow ay valeur nga am carte d'identité bu am importance mhm. muy dignité ak ngor ak personnalité ak diine mhm. ak sunu cosaan di nga xam ne fu nu jëm dañ ko fay yóbbu ñun sénégalais yi fii surtout loolu sénégalais mhm. dëgg ngelaw du ko yóbbu ndox du ko yóbbu sénégalais dëgg fu mu dem day yóbbaal li nga xam ne mooy jikko sénégalais ndax jom ji ñu am fulla ji ñu am fayda ji ñu am bon képp koo xam ne jéeg nga jël avion fàtte sa ay valeur fàtte nga yow yaay kenn xamoo sa bopp. dëgg la tey li ngeen di waxtaanee. Mhm. bu ma ciy wax sama yaram dafay daw ndax dama koo dund. gis ñi ma jege ñu koy dund. ndeysaan mu nekk nag ñaari waay dencante yi ñaari waay dencante dafa am lu ci yàlla wax. ñaari waay dencante ku ne dangay ngay jaamu yàlla sa morom. te jaamu yàlla day ànd ak xel mu dal xol bu féex. Mhm. waaye yërmande te ciy laxasu. Mhm. ndeysaan soxna ndax jigéen ñu ngi ko bind si faaru góor. voilà euh, ab expérience wala. Ah. loo xamante ne dund nga ko wala tamit euh, gis nga ko foofu euh, muy mu dem ba. si laay si laay ñëw nii si laay ñëw nii si yërmande gi. voilà si loolu laay ñëw nii moo tax ma dugg si yërmande gi dama la andi ñaari waay dencante yi. la yi nga xam ne ñoom la yàlla boole ñu jël avion ñëw. Mm-hmm. maanaam yow mii góor nga indi sa jabar fii si Europe. dëgg la mbaa kii di jigéen indi borom këram fii si Europe. Mm-hmm. la ca laxasu lépp nag mooy li nga xam ne mooy débat bi tey muy nag ëttub diaspora mm-hmm. wallaay ndeysaan mu nekk lu doy waar nag mm-hmm. loo xam ne mënuñu cee wax say jii bu mu jeex mm-hmm. ndax ñu ngi koy dunda dunda gu metti goo xam ne muy góor ñi nga xam ne ñoom ñooy choisir gis nit bëgg ko fekk ko si ay waajuram ñaan ko ñu may la ko nga am yéene ngir lan bañ a mooy yàlla am yéene ngir jaamu yàlla am yéene ngir fond sa famille fii ndax dëkk bi metti na il faut nga am koo xam ne mooy sa soxna moo lay jege parfois nag nga dajee nag positif bi parfois nga dajee négatif bi yooyu yëpp da ci nekk te négatif bi mooy nga am andi soxna. Mm-hmm. ngir na ngir bëggeel soxna si ñëw ubbi ay bëtam. Mm-hmm. ndax la nga waajal lañ la waajal boo demee dégg la sa borom kër boo demee xamal ne fii nga jege boo demee yooyu yëpp dañ koy dégg. Mm-hmm. waaye gis nga kenn ku nekk buñ la yaru sax boo màggee nga yar sa bopp. waaye dafa am ñoo xam ne dañuy gaaw di soppeeku comme ni ko sama yaay waxee sànq. maanaam ñëw bëgg a jël jikko tubaab te doo tubaab. tubaab dafa am ay valeur am yow nga am sa ay valeur mhm. lii baax ci tubaab mooy ku ne jox sa morom respect ñoom dañu naan jikki tubaab mais jëluñu jikki tubaab ndax tubaab mhm. ki mu nekkal jox ko cër mhm. dañuy ñëw judduwaat amaat carte d'identité Europe bi tas na biir kër yi mu nekk loo xam ne góor ñaa ngi koy souffrir ngay regretter nga dem ba yow sa jigéen gi si biir kër gi bëggatoo koo gis da ngay wàcc rek jël sa téléphone wàcc suuf yaa ngay wax quatre heures de temps cinq de temps ki si kër gi a ko moom yëgatu la yow yëgatoo ana ñaari waa denc ba ana denc ba mu metti lool nga te gis nga ni ko Mbaye Ndiaye waxee mm-hmm. gis nga ay nit bu ñu nekkee si ñaari kër ko te kepp mm-hmm. te kenn mënta comprendre sa morom kër ga day takk rek gis nga jigéenu Sénégal li mu xam mooy nooy mm-hmm. jigéen dangay nooy nga am reconnaissant ki sonn na ñefe sonn na ci yow jëlale Sénégal andi la fi war ngaa am ngoru nga xam ni ngay dundee ak moom ndax dëkk bi ni muy dundee boo fa bëggee dund ngay ànd ak dëkk bi ni muy dundee. dëgg la. te la ci yóbbu mooy doylu ak am ngor. Mhm. doylu am ngor. <laughs> ki la fi ni nga jox ko cër. du loo loo romb rek da ko war a am. pour grandeur gi ñuy jël di ko wane Sénégal te nekk fi ñu bàyyi. jërëjëfati di wane lu amul moo lay yóbbu ci loolu. di wane na yaa ngi si paradiso nekk ko si paradiso yaa ngi nekk si dund gi nga xam ne yàllaa ngi lay gis ndax yàlla fépp la Mbaye Ndiaye nag am na lu mu wax sànq si ki nga xam ne mooy soxna su tedd soosu nga xam ne mooy référence des références. Mhm. di soxna yaa Xadija mi nga xam ne. moom la jigéen ñu baax ñëpp di roy. macha allah ci yërmande. Mhm. ndax jigéen dafa war a yërëm sangam. dëgg la. sang bu nekkee si biir ke dafa war xool soxnaam bay gis yaayam. Mhm. mooy war a ñu naan aawa yaay jooju ñu koy way. parce que mooy lan da nga am comportement yërmande. taxaw sa borom kër jàppale ko. wallaahi di ko naat li nga li sa wërsëg nga jël ko lii wërsëg keneen nga bàyyi mu dem. ndax nit du lekk lu jur wërsëgam. boo naaxantee lu bëri di ko mën a am sànq ñi nga xam dañuy tëj seen ay jabar. Hmm. waaw parce que damay ñëw si côté bi nga xam ne moo jiitu ba pare ni ñu ko diina waxee mooy jigéen nangu oyof. Hmm. jigéen nangu oyof si ñun jigéen ñi ba pare. Hmm. góor yërmande yërmande yërëmal jigéen ji nga jëlee dëkk dëkk amu fi nday am fi bàyyi yërëm ko surtout loolu may ko Batman dalal a xelam dëkkal ko si këru jàmm bañ koo teg fitna waaye andi nga sa jabar ba pare wëlbatiku nag wan yoon bi ndax am na ñoo xam ne bu ñu mas a téye téeméer bu ñu ñàkk nga ñëw si dëkk bi xëy rek am cent mille cent euros boo àndul ak ngor daloo amoo kenn ku la naab da ngay naab fitti na hmm. nga liggéey weer ñu ne la am téeméer junni ak fanweer nga naan déedéet kon lii la boo amul ku la dalal amoo Sénégal kuy déyante ak yow ndax mag gi dañ daan déyante di la naab. Hmm. di la dalal. Hmm. jëkkër nii lañ koy defee boo amee lii boo amee lii gis nga ñun ay noble lañ ay pauvre lañ waaye pauvre yi noble lañ. dëgg la dañ siy gis ñoo xam ne. mar di leen tax a naan petit waaye dafa am ñoo xam ne ndeysaan dañuy jékki rek wëlbatiku nekk ay jinne seen kaw jëkkër. Mm. waa Ndoya. Ndoya doguma la foofu Ndoya. waaw ma ne des góor ñi itam. Mm. dañuy jékki mm. ba mu yàgg soppeeku. Ah, waaw yooyu dafay am maa ngi siy ñëw. voilà merci. wallaay ndeysaan ay ci ñëwal. maa ngi siy ñëw mm-hmm. nga dafa am góor ñoo xam ne dañ lay andi ba pare. Mm-hmm. dugal la ci biir prison boo xam ne yow doo xam lu mu doon. ñu ngi ko doon wax sànq. xoolatuñu la xoolatuñu la xamatuñu yow yaay kan. Mm. amatoo importance seen kanam. am na jigéen ju ñuy bégal di la naxaral te yàlla waxul nga bégal jigéen naxaral jigéen. dana yar boo amee ñaar yemaaleel. da am jabar am ngoro Sénégal. Mm-hmm. di ko souffrir loo. Mm-hmm. lan moo ko andi facture yi ci kër gi. dëgg la mm-hmm. ñaari salaire yi daje ci biir kër gi. dëgg la te ku ne war naa am ngor ne salaire yii. yàgg-yàgg dañ ko fi bàyyi bu dee ay milliards fi nga koy bax ndax bàmmeel alal du ci dugg kër du ci dugg oto du ci dugg daya du ci dugg déedéet mm. ku ne wàcc sa bopp yërëm sa morom góor gi dafa waram jigéen ji jigéen ji xam mooy kan mm-hmm. ndax boo xamee sa bopp sa jëkkër du la jaaxal yaa koy téye sa loxo téye bi nag du doo yaa koy ilif mooy nga naaxanteeg moom yërëm ko mooy tax li mu am mu yéene la nga am nga yéene ko ngeen ànd dunda dunda gu rafet wallaahi yàlla jàppale leen wallaahi macha ci kàddu waaye li ma gis dëkk bii mm. góor a ngi rey jabaram ndax la ñàkk koo supporté énervé. dëgg la. jigéen a ngi nii rey jëkkëram si dëkk bi ñàkk koo supporté mm. trahison yi. Mm-hmm. ñun jigéen ñi yërndu bi yërndu bi mm-hmm. yërndu bi yërndu téléphone yi. Mm-hmm. yàq sa àdduna. jigéen ja sa Sénégal di bëgg yow ngay naxar rek sa yaa ngi liggéey yaa ngi defar kër gi. <laughs> yaa ngi jàppale sa jëkkër la nga koy jàppale sa sa lay jël di jox sa moromum jigéen mm. parce que lu tax amoo xel say xel la. xel la xel la. say xel la ak dal. xel ak dal sama mbokki bari diaspora. waaye wax ba ndax génn sama mbokki diaspora bi. amul solo sama mbokki diaspora bi dama ne jigéen ñi nekk diaspora bi say xel la. Hmm. dëgg kër yi dafa xat nañu wàcce kàddu yi naaxante jiital xel yi ba ñu jiital xol yi bàyyi nag bët bi ñu teg ci koppar yi rek. koppar yi moom. <laughs> koppar yi ñu jël teg si bët di calculer la ngay yónnee sa yaay la ngay yónnee say rakk la ngay defal nangam. Hmm. dégg naa nangam di xool ay facture di xool ay ria di xool ay western union. doo am jàmm yéen ñu ko sarse yu bëri sarse ma ne ko ñu ko yaakaar bëri mhm. yow nekk jigéen boo dee jigéen ci biir kër mhm. maa ngi nii dóore egsa damay togg nii di nga toog ba mil wi ngay togg ngir leen bag sa bànneexu jëkkër parce que Europe gii fi la sëy bi gën a métti ndax jaxa amu fi mhm. doom yi yàlla di téye lépp dafa nekk loo xam ne lu métti lépp temps lañ koy def danga koy daw waaw loolu yëpp boo ko bëggee bool te amoo jàmm si biir kër foo jëm day metti xel góor ñi nañu yërëm jigéen ñi waaye jigéen ñi nañu dal metti na buñ la ko waxee ak buñ la ko waxul dund gi metti na c'est pas évident yombul bon nañu defaraat toogaay góor ñi yërëm jigéen ñi jigéen ñi sëy te yàlla tax trahison yaa ngi ci biir dem ba gis lu ko raw mbaa nga gis ab tubaab mu teeral daf nga bàyyi fi ki nga àndaloon kàddu boole leen ngay gor muy gor ngay jullit muy jullit nga gis ab tubaab ànd ak moom dafa am loo xam ne bu ko ngor lal yónnil yàgg toog xaar ko lépp dafay ñëw. te muy leer. Ah. waaw bàyyi sa jabar nekk si mbedd am na ñoo xam bu ñu wàccee du ñu dem seeni kër de. Mm. bu ñu wàccee baari la ñuy topp di taxawaal di taxawaal di taxawaal ba guddi. parce que ñu duggee sa kër dootuñu am jàmm. ndax jabar yu tar am ñoo xam dañuy préféré nekk sa biti ndax jabar ju tar. dëgg la waaye am na ñoo xam ne gis neen mooy tax li ci biir kër gi bëggatuñu koo gis ndax la mu ngi liggéey. te wërsëg nag yàllaa koy joxe. loolu dëgg la man daal li may jox balaa may tëj sama mbokki jigéenu diaspora bi. Mhm. mooy que ne ñaari waay dencante yi dañuy jaamu yàlla kenn ku ne sa moroom. Mhm. dëgg la ku ne da ngay am yërmande sa moroom. Mhm. ñu gungee ko ngor. jungee ko xam sa bopp. gungee ko xam li nga doon. jigéen yàlla moo ko teral war ngaa xam yow yaay kan bu la dara fëx. du gàddu ko ana mën a kan. Hmm. booy am cinq mille euros sa jëkkër di am deux mille euros bu ko xeebal deux mille euros. wallaahi. àndal moom yërëm ko te xam ne li tax a tax moo tax moom mi la andi ba nga am loolu. bul fàtte bul fàtte gestul amal reconnaissance. Mm. xamal sa cosaan bul rusloo sa famille. ndax jigéen dafa war a xool sa kaw. dëgg la am kersi si borom këram di ko bii di sukka di jébbalu sëy bi ab tubaab ba Sénégal a fépp mbokk yam sëyal sëy bi rek ngir say doom. wallaay ndooyee dëggati nga wax wax naa dëgg. sëyal sëy bi ngir sa doom. Mm-hmm. ndax wërsëg yàlla moo koy séddale. Mm-hmm. parfois nag dina am góor ñoo xam ne duñu comprendre. Mm-hmm. di nga andi sa jabar tey tey tey mu ñëw ëpp la wërsëg. nangul ko ko rek naa xam teg moom. dëgg la nangul ko ko naa xam moom yàllaay séddalee noonu. dëgg la mm-hmm. na yaa xam ne defoon ñu def ko tarbiyu jël alal ji bokk ak sa jëkkër. xam la nga cay def naka lépp yaaka moom ya yaa ma moom yaa moom alal ji. ngeen neexal kër gi mu neex na kër gi neex. Mm-hmm. kër yi dafa xat dëgg la macha allah. nañu sayta yàlla tax. kaddu yi am na solo lool ëndooyee diaspora bi métti na. te ñun jigéen ñi maa ngi leen di jarabootal di leen jaajëfal ay jàmbaar lañu. jàmbaar lañu góor ñi ay jàmbaar lañu ndax da nga gis kuy liggéey dix heures de temps. da nga gis kuy liggéey douze heures de temps. Mm. ngir njaboot. dëgg la la nga bëgg góor ñoo xam dañuy bale di fowe di togg di daw di daw école di daw di sonn ci yow te yow gisuloo ko yaa ngay reewantu rek lan la. ñaaw na mm. nga la xoolal sa jëkkër nga yërëm ko mu nekk nga nekk yaayam si biir kër mu nekk sa papa kër gi neex. dëgg la mm-hmm. ndax nit lu mu dund mënu ko am ne te man sama jëkkër gi papa laa koy wooyee mu di ma wooyee yaay jës ba yaay songaan gànn mi ci wàllu ci gànn ju mooy sama eh, tànk sëñ eh, Babacar loolu neex na macha allah di ko toogal bébé Babacar da buy lekk di ko wayal da daan kan mas coono ah, àdduna la neexal kër yi ñun mm. waa ay jàmbaar lañu ñu ngi doon guddi ak bëccëg war mm-hmm. nañu xam suñu bopp góor ñi nañ ñu yërëm nañ ñu yërëm jàppale ñu nañu xam suñu bopp ku la xamul na nga xam sa bopp. Ah, ndax di nga si daje jigéen ju am jom. gis si góor goo xam ne ndeysaan da nga koy xool naan kii ndax góor la. yooyu yëpp a ngi ci. dëgg la bu ko defee na nga xam sa bopp nag toog sa toogaayu bopp nag. ndax ku la bëgg sàggane ku ne nga xam sa bopp. te am na jigéen ñu am fulla am fayda ne ci dëkk bi nag. dañuy ñaqare di jariñu. macha allah. Hmm. am jigéen ñoo xam ne ñu ngi si dëkk bi nag seeni kër la ñu defar ba mu rafet. Mhm. tey Mbaye Ndiaye la ñuy invité suba kanja ginnaaw mhm. suba c'est la nga war a jox sa jabar nga dem jox ko beneen jigéen deux cent euros. jox cent euh. fa lekk boo naaxante woon sa jabar dina la ko togg togg bu dee ndax Sénégal ku toog. dëgg la macha allah jërëjëf. te ku toggul jéegu jéegu YouTube baa ngi fi. jéegu YouTube boo fa duggee nga togg ba mu ne yàq bon macha allah waxtaan bi. <laughs> nee na jéegu YouTube waxtaan boo xam ne day yem tey. ñaari waay dencin tey si Europe metti na foo ko na a ndax tey jii dama si cof rek fu ne dama ko laal. waaye ay tembi tem la. am na sama yaay Aminata Naar mu ngi bëgg. soxna Rella ñu ngi bég Mbaye Ndiaye maa ngi bég sama góor di jaajëfal sama technicien yi loo xam ne dama ciy dundal bëree bëree bëri mm-hmm. ñu ngi si dëkk bi man madame Guèye gar damay wax ak ay jigéen ndax dama nekk social di wax ak jigéen yoo xam ne dañuy dundal lu metti di souffrir góor ñaa ngi souffrir jigéen ñaa ngi souffrir bon nag ku nekk na nga defaraat sa toogaay ñu dugg si fu mën a kas ku ne comprendre sa morom di leen wax ak tàgg bu du tàgg fi amal la di am bég nag képp koo xam ne yaa ngi ndeysaan dina ànd ak ñun ci li nga xamante ne moo di suñu émission ëttub euh, diaspora mhm. ndax ni ma leen ko waxee dañuy waxtaane li nga xam ne moo di ëttub diaspora mhm. waaye ay diaspora si seen bopp ñoom ñooy dugg euh, jox ñu seen xalaat ñoom si seen bopp ñuy dugg wax ñu li nga xamante ne ñoom dund nañ ko mhm. waaye gis nga li nga xamante ne moom dooyee wax na ko euh, wax na si côté jigéen wax na si côté góor xam nga loolu yëpp bu demee njaajaata lu muy indi moo di divorce moo tax divorce yi di bëri divorce yooyu